taataan li nekk ci biti di ko wax lu am solo la mm-hmm. nous sommes dans la représentation tout à fait alors président de la république continuer mm. moo gën ñu jël réew mi di ko jox aventurier loolu loolu xalaat la mais ñun principe bi ñuy wax mooy allah kulli xaal président de la république bu fi tax tabaxoon ay dëkki jamaa ak mm. or indi ñu àjjana dafa war a dem daf ñu war a jox suñu kër bi ñu moom mooy ñun ñooy tànn après ki ñu neex parce que foofu la amoon rendez-vous ak histoire mm-hmm. jël ko ci Senghor bi fi tubaab yi imposé mm-hmm. mu utiliser politique politicienne xeex ñoom Mamadou Dia tëj leen nag ak yeneen ba ci président Macky Sall les Sénégalais n'ont jamais eu le loisir bi ngay wax tànn seen président de la République Macky moo waroon ñëw mm-hmm. ne jeexal na il nous donne l'opportunité d'entrer dans l'histoire ci beneen étape mooy ni que tey jii président sortant bokkul parce que Senghor dafa jël article trente cinq dugal Abdou Diouf Abdou Diouf tout sauf euh, Diouf moo ko fi jëlee. Abdoulaye Wade tout sauf Wade moo ko fi jëlee. Mm-hmm. Macky Sall tout sauf boobu la waroon bañ. te fa ñu yóbbu pratiquement mais mais mais bu dul bu dul man du baax sax loolu dafay war a. mais moo dul war naa mun a weesu. moo tax sànq la. Mm-hmm. bu suñ borom yóbbu woon suma bakkan. ndax sumay waa kër dañuy continuer dundam déet. dañuy dund. ah mais bu fi président nekkeek nekku fi lan la fi mën a def lu fi nit mënul def lan la fi mën a yeggali loo xam ne day tax mu mët amu fii li muy li ñu koy laaj mooy moom ci boppam mu am grandeur organiser sa sa sa sa nu mu tudd euh, sa succession son départ et sa succession dans les meilleures conditions mais mais est-ce que bàyyi woon urne yi sanctionné ko génnu toon mbedd mi sanctionné ko bu fekkee samp bu ña bu laajee ñaari. Hmm. gars yi dañuy def ñaari ñu xam nga lu ñuy bañ boo gisee sax sànq yaa ngi ma koy laaj. Hmm. à un moment donné on dans la confusion confusion parce que ñor génn leen joxe bakkan ñorul génn leen joxe bakkan boobu tamit daf ñu doon commencé tiital parce que ba nga naan gars yi génn leen joxe bakkan boo moytu yaa ngi sa néeg hmm. xale yi di dem ñu leen di rey te des fois ci ay fen la. moo tax ñu taxaw donc du ñu favoriser nit ñi dem leen deewi ji kenn bëggul dee mais le problème nag mooy dañ ko yàgg wax kenn moo mën a am yërmande ci Sénégal yi kenn moo mën a delloo njukkal sénégalais yi kenn moo mën a gore vis-à-vis des sénégalais c'est le président de la république ni ko dimbalee bi mu jaaxlee mm-hmm. ñu bëgg ko fi tëj gars yi mm-hmm. taxawu ko te du woon de ko mérité yàllaa ko dogaloon noonu la ñu war a mën a delloo njukkal dem de un départ apaisé mm-hmm. bàyyi sénégalais yi moo xam Ousmane Sonko la moo xam man la moo xam yow la ku mu mënti doon les sénégalais ont la liberté de choisir ki ñu bëgg mu nekk seen président et c'est sûr Sénégal day continuer. par rapport ak mm-hmm. problème mu choix yaa ngi doon yaa wax sànq. Euh, euh, parce que tey jii bu ñu waxante dëgg aussi ñaari ñaari coalition ma ñetti coalition ma fi am. Mm-hmm. coalition Benno Bokk Yaakaar coalition Wallu Sénégal ak coalition Yewwi Askan Wi. Mm-hmm. Euh, ñu gis na ne population bi dañ leen a joxoon bopp ci élection local yi jox leen bopp ci élection législative yi waaye seen comportement ci assemblée nationale tax na jamono ji ñu bari ñu ngi am mi na ci taxawaay opposition bi. man dama bokk ci Sénégal yi nga xam ne dañ gëm révolution. même bu dee amuñu la même lecture que les autres. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ni jàpp nañ ne que révolution mooy dóorante xeex taal changé man révolution bi ma gëm mooy la remise en question mooy l'interrogation xam nga mooy le questionnement lan moo tax lan moo tax si ñu bëgg Sénégal yëpp tënku ne Sénégal fukki nit ñi ñu gis rek ñoo ko yeyoo yor ndax seen juddu la ndax seen xam-xam la ndax dañ leen mës a gis ñu dem ci weer wi. Mhm. ndax seen ay la. ndax seen profil la. ndax seen programme la ñoo nangu ko def politique. ba non am na ñu deful politique ñoo xam ne xam nga lan mooy révolution mhm. mooy yeneen doomi Sénégal yoo xam ne sax xëy na parce que liñ ñu ah, dicté ah moo toog si kër si ñu lay fal quand même. non dina am ñuy présenté. Ah, les gens vont se je salue mais par exemple dynamique dynamique euh, candidature indépendante am na. parce que le piège qu'il y a dans le fichier pour man y a beaucoup de militants kin ne votent que pour leur candidat. nu mu mën mel moom la ñuy voté. ndax ñu ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañuy toog di observer xool Seydina Omar ak ak ak ak Alaaji Bopp kan moo ci gën a jub kan moo ci gën a baax projet faruma ci milité wu ci mais ma tànn ci sénégalais boobu dafa war a fees dell ci fichier bi pour arbitrer parce que ñi nekk ci fichier bi di ay militant politique waa kër Karim Wade lu Karim Wade mën def moo fi gën moom la ñuy naka noonu Macky Sall naka noonu Khalifa Sall naka noonu ñaan sénégalais yi ñu manifester génne seen bopp xam ne ingénieur en xawma lan bi nekk fële mosul politique amul base politique mm-hmm. ñii fi nekk am opportunité am base politique ëpp ñu ko mérite ak xam-xam wala gën ko yooyu réew mi surtout nag ñoom ñëpp pratiquement du ñëpp de mm-hmm. mais boo gisee dynamique yeeg les grandes coalitions ils sont tous dans la politique politicienne ce mm-hmm. mais si ah ña nekk kër Macky Sall tey jii seeni i intérêt donc moo tax ñuy wax troisième mandat du ngëneelu Macky Sall du ngëneelu Sénégal ña nekk opposition bi ñu ci bëri ñoo seen euh, nañ falu en tenir de une clientèle politique tant que y a d'en tenir une clientèle politique parce que suñu ministère yi ngay wax nii loolu ko yàq mais am am na ay ban doxalin bu bees wax nga ko assemblée na ban change euh, lu saagante nday ak ci kaw table yi ngeen baal ma mm-hmm. ak këdd ay jigéen weqante weqante mm-hmm. il nous insulte il insulte les sénégalais ñooñu noonu ñoom ñëpp amuñu retenu mais jigéen ñi aussi jigéen jee ko def. lan lan la def. que jigéen ñi aussi bu mu tooñ ba noppi rek gars yi bëgg a. jigéen bi bu fii tooñ baal am na fi. yéen a ngi baal ma Mimi Touré. Mhm. yéen a ngi baal ñeneen. yéen ngi ànd ak d'anciens voleurs ñu détourné alalu réew mi ça ne vous jigéen boobu tooñ ñu ngi dem ci sëriñ bi mu tooñ kon ñu ñaan ko ne sëriñ day am yërmande. Mhm. sëriñ day jéggale loolu la ñuy xaaree sëriñ parce que yaa dañuy jaakaar ci sa barke pour dem àjjana. Mhm. du dëgg la ñuy dig lu neex kon war nga mën a toll jéggale. mais mais Abdourahmane mu la dégg nga wax dafa mel ni yow gëmoo. Karim Wade gëmoo Khalifa Sall gëmoo Ousmane Sonko. non c'est pas les noms qui importent. wala l'opposition l'opposition quoi. xam nga la laa gëmul ñoo ah, constitué ñoo constitué opposition bi. boole ci président de la République sortant xam nga laa gëmul. <laughs> xam nga laa gëmul du ay Karim parce que Karim gisatuma ko déggatuma ko du Ousmane du Khalifa. Mhm. doxalin bi boo gisee ne lii Macky Sall def du dëgg du yoon baaxul ci démocratie ba nga am courage dénoncer ko. baaxul ci réew mi mais boo ko gisee opposition da nga koy dénoncé mu tudd Karim Wade mu tudd Khalifa Sall mu tudd Ousmane Sonko dama koy dénoncé li ñuy def moo narut a baax ci réew mi xam nga lan la ñuy def hmm. moom la ñu waxoon ne les coalitions politiques dañuy mbubboo mébétu askan wi ba falu bu ñu faloo kan la ñuy jox les ministères et les responsabilités que leur mili le le le responsable ces responsables là ñooy séddoo les les ñooy mm-hmm. tous les postes. Mm-hmm. kan la ñuy jox mbir yi. Mm-hmm. seeni ay militants. ils vont exclure mës nga fi gis appel à candidature. justice sociale. égalité des chances. pourquoi tous les Sénégalais qui ne sont pas dans les groupes politiques sont exclus de ces chances yi nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk te ñun ñëpp ay cotiser ils sont dans les mêmes pratiques ban justice ngay am ëllëg. justice bu ànd ak ñi nga xam ne démb yow yaa ngi leen doon xeex jàpp ne ñoom ak ñi ñi détourné xaalisu Covid bee yëpp ñoom ñooy àndaat suba jël réew ndax après da topp Alioune Sall topp Mame Boye topp Mame Mbaye après bàyyi ñeneen ñi nga xam ne démb dañu détourné suñu xaalis ñi ngi ànd ak yow parce que su tout simplement xeex nañ Macky Sall wala ànd ak yow. quest que tu dis par exemple. heure heure bi jot na. ah temps solo. waaw ci tënk euh, waaw